صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء ما غمس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء ما غمس والسفر mbokki jullit yi nekk ci biir réew baax santine ñi ngi waajal màggalu Tuuba 2019 bu baax ci anam yu mucc ayib lool ginnaaw bi nga xamee ni fédération Daahira Argentine daal dina ñuy sumb ay karawaan di nemmeeku fépp foo xam ni mbokk taalibe yi ñu ngi fa nekk tey jii nag ñu daal di ñëwoon ci daayira 18 safar di daayira bu ràññiku ci réew mi ñu daal di amal safar gu am solo goo xam ni itam dañ ci xëye bexndeel gonte ko itam waaye ci ngoon gi itam ñu daldi di jàng lim bu takk lool ci ay xasaayit ci durus waaye itam yëkkati ko lawal seen ay bernde ci mbokku taalibe yi itam jëwrin yi daldi safonte ak ñoom waaye itam amal ay waxtaan yoo xamee ni rekk dañ koy laytaaye jëmale ko ci waajal màggal gi ak fi ñu toll ci liggéey bi mun mënuñu cee bañ a soññ ndax fi mu toll moo tax sànq ba léegi di a ñi jàng wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke man li ñu jàng-jàng yëpp man maa ngi dellu de maanaam maanaam maanaam li may gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt xel sama xel mi daa dellu ci sëñ Tuubaa rek circonstance ya mu nekk circonstance ya mu nekkoon di bind xasida wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke ñenn ñaa ngi fi tasu xëy na tuwaat fa kàlla am na solo lool waaye léegi-léegi loolu mun te ñàkk si murit ngay xalaat boroom bis bii ana lan la daj ba am lii mu am fan la tolloon bi muy bind xasida yi lan ñi ko yóbbu ci sababu zaahir nag la ñuy waxee ndax foofu la suñu xam toll ban anam lañ jaloon ñoom ci génn ko ci dëkk bi ngir yóbbu ko lan lañ bëggoon ci moom baatin gi nag sañ yoon neew ci ndax xamuñu ko waaye ñun ñëpp bir nañ ni ni ñu def ay moroomam rek lañ ko bëggoon def mooy dell génne ko te dootul dellu si ndax ña fa jaaroon génn ñëpp delloo si kenn gisul seeni i waaye li am solo mooy maanaam jéem di dund loolu ci sëñ bi di xam ni maanaam lu weex katt la dajoon ngir sëñu jëmm yi li ma ko weex a saa su ne yooyu kenn ku ci ne boo ko wéetee di ko jàngat du ñu wooteel sëñ bi loo xam ni dañ koy natt muy jën ba déwén mag ñi de loolu daan dund boo déggee ñu daa wax ne maanaam sëñ bi mu sa sentaan lu jëm ëllëg gis naa ko Cheikh Khadim mag ñi dañoo demoon ba sëñ bi def ci ñoom loo xam dañoo demoon ba yëg ci sëñ bi loo xam ni bir na leen rek wallaay lazim bu du woon moom seen jëmm yi kenn waxatu ko ñu koy dund nag ñu koy dund moo waral bu Moussa santaane téeméeri kaamil balaa kaddu gi daanu juróom fukki mat bu kaddu gi ne rës yeneen juróom fukki daanu bu mu saan santaane kër yooyu moom kenn waxu ko mag ñi sax dañ daan génn daan xool kër gu gën a gu gën a taw féexee ci àll bi moo xam ak colon moo ko yoroon wala chef de carte moo ko yor danañ fexee lijjantee lijjante ba xam fan lay jaay dem jënd ko sañ bindi ko keroog ba Cheikh Anta demee Màkka ñu lem la fa ne woon yëpp di ko yeesal da kaay jënd ngir barkeeloo ko indil ko sëñ Tuubaa waaye anam mu jënd gi moo jara moo jara bàyyi xel ban pas-pas la sëñ Cheikh ant amoon pour jëndal ko loolu sëñ Tuubaa du woon bari alal rek tax mu def ko de waaye yëgoon ni maanaam lépp yonent bi lépp sëñ Tuubaa la moo waroon tax mu doon def jëf jooju ñu nag foofu la war a toll bis bii nag ñu jëm li gën a doy waar ci wax ji ni ko Adama waxee léegi maanaam woote gi mu wootee ñu ne ñëw leen santale ma sañu borom ngi tële gi mu tële moom ci sant gi jàpp gi mu leen tëlee te tële gi mu tëlee ci sant gi du war du dara lu dimbale ñu rek ndax jumaam ju tedd jii waxoon na ne amul lu yàlla bindul rek lu ñëwul sax ko ci moom ngir ñu defar ngir ngir defaral ko ko waaye da leen xamaloon ne leen am na njabootam kuy ñëw goo xam ne yoolu jumaa gi daa bëgg ñu barkeelu ci te moo ñu daal ba léegi nii kon bu màggal gi tollee fii boo demoon ci jëwriñ taala mi laaj ko danaan la bilan zéro la ñuy dox fi mu nekk nii bilan zéro nag mooy fi waxtu bii ñu toll nii waxtu bii ñu toll nii sëñ Tuubaa takkoon naa ay bagaasam bu yàgg bu yàgg la tëggoon ay bagaasam ndax li jaral li jaral li jënti mooy jamono ji ñu toll ñun nii am ñu mbégte ni ko sëñ sëñ Muntaxa wax ak jëm wax na ko démb de bi muy soññe soññam juré jooju ci àddiya xamal la ne bis bi sëñ Tuubaa santaane bisu màggal gi la du sax weeru safar bi nañ ko defee léegi te wallaay la jëm ku ci moytuwul di nga màggal weer gi weer gi màggal màggal goo xam ne bu bisub safar gi ñëwee da ngay sëgg te lu jata bàyyi xel la lu jata bàyyi xel la ku dee ci bisu ku xam ci bisu firaw na bu bisu yonent bi ñëwee da war a dee kon safar yi ñuy taxawal nii foo ci dem nag bañ ko tàmbalee ba léegi foo ci dem tuwaat fa kàlla kon bu màggal gi nga xam ne moom la génneloon ci kàddu gu tedd googu ñëwee mais dañoo war a rey sañu bopp ñun murit di sant yàlla bu baax nag ci biis bi nga xam ni moom lañ def moom lañ dëdmal muy màggal bi ndax ku ne xam na ni fi mu toll nii moom lañ fi war a wax lépp mbokk yi wax na ko pare waaye nag bis bi dafa nekk loo xam ni maanaam murit bu jël kàddu fi mu toll nii maanaam da nga cee war a wax moom murit bu jël kàddu rek war nga cee wax su ko defee nag ñoom fi ñu koy tënk rek mooy ku ne xam na ni 18 safar maanaam ñëw na ndax alxames bi ñu jëm incha allah taala bu delsee ci lañ ko fas yéenee taxawal te comme ni ko suñ Bamba waxee léegi rek ci addi yi nga xam ne moom lañ war a dajale ngir maanaam sant la ci sëriñ bi boroomam maanaam ñu jàppoon ci kenn ku nekk cinq mille pesos loolu tamit lañ bëgg a soññee ndax il faut ñu xam ne bis bi maanaam li ci gën a am solo topp ci tuyaaba mooy maanaam mooy mooy mooy bernde yi ndax sëñ Tuubaa bernde la ci tudd moom la ci biral jaamu yàlla gi nag moom lu ci waay mën a def baax waaye bernde bi ci gën a kawee ci jëf ji nga xam ne moo aju ci ci bis bi maanaam mooy bernde ndax bernde bi dafa wax ne li ko tàmbalee ci ginaar ba ci giléem kon nag bernde boobu li koy def ko ne xam na ko mooy ñu jéem a góorgóorlu sa si te fonk ndax fi mu toll nii tamit maanaam bilan zéro boobu suñ Bamba wax léegi ci lañ nekk te wax dëgg yàlla nag dafa am loo xam ni war nañ koo rombale suñ bopp ndax yoonu siñ Tuubaa waaw mu toll dafa toll foo xam ni maanaam nekkatu ci ay wax ay jëf maanaam ci lañ toll jëf moom mooy li nga xamante ni bii ñun ñëpp ci lañ wala dox jëm te xam ne mooy lu mënta ñàkk te bis bi fi mu dafa ñëw ba pare su ko defee nag sas yooyu nga xam ne moom lañ jàppal mbokki taalib yi nekk ci réew mi yëpp maanaam séddale woon lu mat ñaar fukki carnet ak juróom maam Thierno mi nga xam ne moo yor organisation yoroon ko séddale ko mboole mbokki taalib yi yëpp su ko defee ñu carnet yooyu kenn ku nekk maanaam 5000 pesos yi nga xam ne moom lañ bind dañoo bëgg benn mbokk taal bu nekk maanaam nga dem ba ca carnet ka la gën a jege maanaam ko 5000 pesos foo ko joxee nag baax na ko defee loolu bokk na ci li nga xam ne moom la leen di fàttali su ko defee comme guddi na te maanaam mbokk maa ngi may wax léegi nii borom saal bi soññee na ay yoon ñun moom ñun murit bokk na ci suñu mbir nag dañuy xaawaabal wax dëgg yàlla Sëriñ Tuubaa nag moo neex moom maanaam fi doolu fu ñu joxee 10 heures lay jeexal bu nu joxee minuit 3 heures lay jeexal sëñ Tuubaa nag moo neex waaye nag bu ñu àggatee tamit ci waxtu bi ñu ko war a jeexal ak lu mu xat-xat ak lu mu neex-neex rek ñu jéem ko yemale foofu pour ëllëg ñu maanaam lañ fa amoon ñu mën ko fa amaat loolu nañ ko bokk bàyyi xel baax a baax gën a yaraat jëmm yi bu baax gën a góorgóorlu gën a baax gën a ànd ak yar gën a ànd ak teggin gën a fonk liggéey bi sëñ Tuubaa bu baax buñ ko defee lépp loo xam ne bëgg nañ ko dañ ko am te kenn du sonn incha allah salaatu allazi fi kulli shahrin amaani ala ma in ma xab safar salaatu